sëñ Aziz aousubillahi min asheytaan irajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu fi ngeen nekk leen ziar di leen balaaq di leen balaaq di ñëwaat ci bis bi nga xam ne muy le 25 décembre bi nga xam ne nu ngeen ko xamee at mu ne fii ci Brescia ci Pontevico Sëriñ Abdul Aziz Eh, surtout sëriñ ah, Baara dina fi taxawal waxtaan woo xam ne ay ati at mu di ko def mu doon bis boo xam ne it day firndeel lu bare ndax ku ne xam na ne bis bi mu dajal la 24 décembre am na lu ci seen borom yooyu am na lu ci seen borom doon def ci loolu it ci lañ ak ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso di borom xam-xam di kilo fa di bokk ci waa Mbusoobe ku wax mbakke da nga ne Mbusoobe ndax kenn mu leen a xàjjale sëriñ bi kon ñu ngi lay ziar di la nuyu. waaw euh, bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi lay delloo ziar bu baax a jërëjëf jërëjëf sëñ bi bu ñëwee ci bis bi gislaayu eh, bis bi wala matuwaayu bis bi ku ne xam na ne bis bi am na lu mu yeyool loo xam ne seeni borom moom lañ ci daan def ba wàll si woon ne sax ci mel ne ci ñun ci mooy lu mel ne taali pétard lu mel ne muy génn lu mel ne fanaana yëngatu bu bis set waaye sëñ Abdou Aziz ñëw indi yowaat bis bi jox ko beneen xar kanam ngir ngi fiy ñekk loolu mu am njàngat moo xam ne war nañ ko ci def ci ñi nga xam ne diine noonu la amee solo li nga xam ne lu mu bëgg a moo mot na ko woote te du ko ànd ak xeex waaye da koy ànd ak xam-xam ak xel. Euh, jërëjëf euh, muy lu am solo. Euh, sëriñ Abdoul Aziz Khadim Awa Ba taxawaay bi nga xam ne yàgg na ko def fii depuis datu yàgg mën nañ ne 98 daanaka ba léegi yàlla dogal tamit ni nga ko waxee léegi ñu ñëw teew si ci ngir yàgg koo bëgg ngir bis bi nga xam ne mi ngi koy taxawal Sénégal lu mat ñaar fukki at ak nangam ñu ngi koy ànd. ngir ni nga xam ne demee nañ ko ci ak bokk ak jaxasoo gi waaye rawatina eh, wet gi nga xam ne ci lay jëmale eh, taalibe yi ak di ci jëmale ndaw ñi doon tamit ñu nit suñu wet nga xam ne ci la ñuy yëngu saa su nekk muy lu aju ci wàllu jàngale ak yar surtout ci def ko ci méthode bi nga xam ne mooy tënku ci njàngaleem sëriñ bi eh, noonu nga ko waxee bis yi bëri na si Amadou Mamoun wax na ko léegi ci phénomène yu nekk muy dajaloo togg lekk Euh, rek te doo gis benn message bu am importance boo xam ne nit ñi danañ ko danañ ko yóbbuloo su ko defee nag organiser bis yoo xam ne maanaa waxtaan gu koy tuddee lu néew néew dana am ay kàddu yu fa jógee yoo xam ne dana amal njariñ nit ñi du wuuteeg dajaloo rek togg lekk kenn am ambiance mel ne saaru feet déedéet su su ko dàkkee ci bis bu mel nii nag nga xam ne réew mu mel nii di itali nga xam ne diiney mu am na fi doole lool Euh, bis bii di bisu Noël nga xam ne daanaka doo gis mbedd mi kenn ñëpp ci seen i kër mu fexe ba bis boobu mu jox ko Cheikh sëriñ Touba woote ci ngir nit ñi fàttaliku ci sunu borom waaye tamit jël ci message yoo xam ne danañ ko yóbbuloo surtout euh, dénk leen ci wàllu yar ak jub ak it sàmm seeni jikko ba muhaamala yi mën a mën a mën a jaar yoon waaye tamit liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu sëriñ bi ñu. teg ko ci yoon woo xam ne eh, yoon wu leer lay doon te loolu lépp mënut a am te teguwul ci xam-xam teguwul ci ragal yàlla nit ki mën naa am xam-xam ragal yàlla waaye ni muy jëflanteeg ay ay bokkam wala ay ay ay bokki jullitam ñaaw ba bu ëllëgee li ñuy wax tafliis mën na mën na ko cee fekk muy ñu jël ay jëf yu baaxam ba jeex ñuy jël ñu bone ñam tooñoon di ko jox te loolu lépp eh, sukkandiku ci xam-xam rek ak waaraate yu tegu ci njàngale bi sëriñ bi moo ko mën a moo ko mën a saafara kon loolu lu am am solo la loo xam ne eh, sant nañu yàlla bu baax ci bi nga xamee ne teewe nañ ko mu mel ni kon bu ñëwaatee ci eh, thème bi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane ren rek muy lu ama am solo ndax mu mel ne dafay fàttaliku li fi jaaroon mhm. ci wàllu mbas mi ak niñ ko war a dunde ak niñ ko dunde mhm. kon loolu it mu mel ne maam dafay mel ne eh, alxuraan bi wax ne nit ñi dee leen xalaat dee leen fàttaliku mhm. la'allakum tatafakkaruuna la'allakum tatazakkaruuna la'allakum taqiluun bu koy wax dafay mel ne kon maam lu mel nii bu ñëwee ba weesu am nañ ci luñ ci mën a jàng ndax am na ci ñu ci rëcc am na ci ñu ci am na ci ñoo xam ne feebaroon nañ ci am na ci ñu ci feebarut kon loolu liñ ci mën a jàngate ci lu mel noonu bu ñëwee mooy seet suñ borom nga xam ne gannaaw bu weesoo lu ko neex lay def ku ci rëcc war nga cee mën a jàngaat lu am solo ngir mën a sàmmaat sa diina ngir nga mën a sàmmaat sa bopp euh, lu am solo nga wax ndax alquran boo gisee waskur yi mu tudd yëpp waskur fil waskur fil kitaabi idrisa waskur fil kitaabi ibrahim euh, yooyu yëpp dafa lay wax ne la euh, na nga na nga na nga fàttaliku ibrahim nanga nga fàttaliku yonent yàlla Idris na nga fàttaliku yonent yàlla Souleymane kenn ku nekk am na jikko joo xam ne bëgg nañu roy ko ci léegi nag ku mel ne ya euh, yonent yàlla Ayub euh, nga xam ne ku sunu borom natt woon la ci ak wéradi ba nga xam ne daanaka wax nañ ne euh, fi mu tëddoon ay góom da koo wër ba nga xam ne ay sax dañ ko daa àndalee ka indi ngir ngir ngir ngir tartar yi waaye saa su nekk rek day dellu ci boromam di muñ kon su ko defee nag fa lépp loo xam ne ñëw na ci nit ñi ci ci mbas ak yu demee noonu rek nañ xam ne suñu ci seen ñoo ko fàggu maanaa maanaa doomu aadama yi suñ tegu woon ci ndigalul sunu borom rek mel niñ war a mel euh, mbas du am ci àddina bi waaye boo xoolee tey ñàkk maandu gi nga xam ne moo am ci réew yi am doole yi euh, ñàkk jëfandikoo lislaam ñàkk jëfandikoo alquran ak ñàkk bàyyi xel sunu borom nga xam ne dañuy dañuy jàpp ne daal moom eh, nit ki dafa war a am liberté li ñuy wax mondialisation moo war a am ba nga xam ne lu la neex mën ngaa def amut lu la war a tënk ñi nga xam ne dañuy tënku ci diine sax ñooña dañ leen di nekk di leen gàkkal di leen wax wax yoo xam ne léeg-léeg nag sunu borom day taxaw fëgg dënnam xamal leen ne leen nag man maay sunu borom man maay sunu borom su ko defee loolu nag jàpp naa ne bu ci réew yi jàngatut ma xam ne seeni bët. fatt na seen xolit fatt na lool xëy na nag ñun ñi ay jullit nag am nañ sensu man cee def taxaw seetlu kon su fekkee ne jël na thème bu mel noonu di di di ci jàngale ci ne nit ki natt bu ñëw ci boromam rek war naa am lu mu ko jàngal war naa tax mu yokk tawxiit ci moom loolu day doon loo xam ne euh, lu am solo la ndax euh, euh, Sëriñ Tuubaa dafay wax ne innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waxa ah, maanaam benn waykat bu koy wax sax ci Ibnu Duraydin la maanaam nit ku nekk danañ waxtaanee ginnaawam waaye nit ki doon jëf-jëf yu baax lu rafet rek la ñuy waxtaane ci moom kon nit ku nekk euh, wala jullit bu nekk wala àddina si melokaan yi ñuy mel dafay feeñ ci natt yi sunu borom di di wàcc loolu nag li koy mën a saafara mooy tuub ak dellu ci yàlla ak sàkk sarax loolu suñ ko defee sunu borom dana ubbi àddina sotti fi xéewal goo xam ne dana dàq ak wéradi dana dàq ak wéradi ndax su fekkee ne nit ki dellu na ci borom rek sunu borom dafa bëgg ku ko yëg kon su fekkee ne jël na Maodo ren bi orienté ko ci côté boobu doon na loo xam ne méngoon ak contexte bi rawatina su fekkee ne ginnaaw Covid bi ba léegi mën nañoo wax ne daanaka bisu tey bi ci bis yi gën a rëy fii ci ponte ko ci la bokk. xëy na daaw def nañ ko waaye taxutoon mu rëy waaye tey sangam léegi tubaab yi ubbi nañ léegi lépp. Euh, euh, jaadu na tamit bala ñoo jëmaat nag ci ci ci kanam ñu jàngat. li ñu weesu li ñu weesu. xool liñ ci mën a jariñoo en tànk ju jullit en tant que ab taalibe ah sëriñ bi de moom foofu la nekkoon te loolu kon euh, warees na ko bàyyi xel bu baax a baax ci loolu kon ñu ngi saluer Maodo bi di ci féliciter sëriñ bi jàpp naa ne su ñëwee dana doon lu ñu lu ñu lu ñu amal njariñ ndax euh, gëstukat la te it jàngalekat la tey ci loolu la ci loolu lay dox waaw. jërëjëf ndax amoo job sax waaye nag it yow it comme ci sa wàllu boppit nag. Mm. borom borom xam-xam nga. Euh, tey di wax dëgg yàlla ku ñu naw nga ci sa ni ngay waxee ci lépp ci xam-xam euh, ñu bëggoon it maanaam ku mel na yow sa lammiñ wala sa kàddu xëy na mhm. daa am fu ji ci wàllu ndaw ñi ndax ku ne xam na ne buñ fàttali ko bi si ko sëriñ Abdoul Aziz def mirul woon ñi mhm. comme buñ demee ba mu xumbe nii wala di ko ñaan nangu na te it maanaam xale yi màgg nañ fi juddoo nañ fi jigéen ñi bari nañ fi yow it war ngaa mën a am benn lancé boo xam ne boo leen appel boo xam ne boo leen di jox ndax kat fu mel nii buñ fay dem wala buñ fay ñu am luñ fa jànge ndax bu ëllëgee ñu am luñ jàngale ñoom waaw loolu responsabilité bi mhm. dafay tàmbali ci parent bi waaye dafay mhm. tàmbali ci xaayida yi muy ñi nga xam ne ñooy jiiti mbooloo yi ñooy jiiti daayira yi ñoom mhm. ñoo war a <coughs> xool bu baax a baax a baax orientation yi ñuy joxe fi mu nekk nii te xam ne mbir mi bu dee yoonu murit euh, ab ay kër Sëriñ Tuubaa ak dajaloo togg màggal lekk loolu moom réussir nañ ko ba pare dañ koo war a weesu dañoo war a xool nag fan lañ jëm fi ñu jëm nag weesuwul fi ñu sëriñ bi joxoñ sëriñ Tuubaa moo nañu inni ujahidu bil ulumi wa bituqa habdan qadiman lahu wal muayminu sahidu tubaab bi bi ñu jaaxalee ci moom ba ne ko luñ koy luñ koy jiiñ gisuñ ko mu yor nga lay dana leen dëgg la parce que damay jihaat waaye ci ragal yàlla ak xam-xam ci lay jihaat al al al xilmu ma xaseeta euh, euh, nu ñu koy waxee al xilmu wal xamaru jawxaraani li xayray daareen yajlubaani ca xoqal ba waaw wa asraful asalina ilmun qaddima kama jaa bi hadisun qad sama gis nga Euh, sëriñ bi ca njëlbeen fam ñu joxañoon foofa rek mooy mooy mooy mooy mbir mi tey maanaa pouvoir bi nga xam ne am nañ ko ci bitti ak doole ji ñu am maanaa tey am benn jamxiya wala ñu am association boo xam ne ñu ngi wax ak tubaab yi tey dama jàpp ne fi liggéey bi war a gën a jëm dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñu fexe ba jubóog ñoom ci fexe ba am école islamique école mouridisme mm-hmm. boo xam ne dañ mm-hmm. am ay accord ak ñoom yu leer mm-hmm. yoo xam ne dañuy sañ a mën a dajale mbooloo wut ab jàngalekat di ko fay lu tollook li ñuy fay ñiy liggéey li ñuy fayu parce que ki nekkal Serigne Touba dafa wax ne bi mu ñëwee li ma fi fekk danaa ko àggale waaye xam-xam dinaa ci bay sama laaj kon loolu dafay mel ne joxañ na ci mbooleem kuy jëwri ne rek rawatina lu mel ne jamhiya bi nga xam ne mbooloo lañ lañ lañ lañ lañ boot ci seen ginnaaw kon jaadu nañu xoolaat bu baax a baax taxawaay yi ci tàmbale ci loolu fexe ba créer dooleel sëriñ Fallou mi nga xam ne moo nekk fii di fi jàngale ñu fexe ba wut ñu koy jàppale ñu wóor ñoo xam ne dañuy dégg italien xam pédagogie di jàngal ndaw ñi ñu wut ay oto yoo xam ne dañ koy jënd ñu am benn heure boo xam ne day wër jël xale yi jàngal leen loola mën a jàng rek nit ki ku jàng rek moo mën a yor boppam gis nga nit ki su xamee rek kenn du ko mën a jëmee feneen waaye soo xamut da ngay neex a orienté ci beneen côté da ngay neex a orienté ci beneen côté te it borom defee ngay doon waaw Sëriñ Tuubaa nag waxoon na ne wa min makaidil lainil mujrimi saddul muridina ani taxalu bokk na ci pexe yi ma saytaane di pexeel dëdd gi muy dëdduloo murid yi ci ñu xam te xam mooy taxa jariñu kon xale yii nga xam ne ñooy mujj relève bi tey fi ñu leen mën a orienté jëm dëgg-dëgg responsabilité bi dafa tàmbalee ci parents yi ñu jël ay engagement ci bañ a doyloo école tubaab yi rek waaye ñi nga xam ne ñooy jëwrin yi ak président daayira war nañoo gën a organiser wu ci dooleel commission culturelle yi fi nga xam ne mooy joxañ bi Cheikh Mamadou Mourtada joxañoon ak fi mu jëme woon mbir mi ñu fexe ba jëme fa mbir mi ndax tey bu Cheikh Mamadou Mountakha wootee université 37 milliards bëgg na tamit ci biti ñu organiser wee ndax ëllëg mën nañu yebal ay dowaat yoo xam ne dañ leen di former ci université ba ñuy bu dee Italie ñu dégg Italie ñuy espagnol nekk noonu ñu indi leen fii ñuy ñuy former nit ñi su boobaa day fekk nag day fekk mbooloo mi organisé wu ci loolu ba am ay accords yu wóor ci dëkk biñ nekk ba loola mën a am. jërëjëf kon daal bu ñu déggee sa wax wax dëgg yàlla xam naa ne waxtaanu neex na ba. dañ ne woon dañ bàyyi waaye faaw ñu la at benn laaj mooy comme Serigne Touba moom lim ñaanoon yàlla may na ko u xaate bo bil ulumi u xaate bo bil ulumi u jaahidu bil ulumi bi tuqaa loola moom def na ko ba jëllu ko Serigne Mouhamadou Mourtala a dëgër mu dugg génn ak am possibilité ba ñuy di am autorisation boo xoolee sax mu mel ne maanaam fi ne suñu mbokki naar yi fi nekk nga xam ne buñ bëggee julli fii ñuy ñëw buñ bëggee dara fii ñëw moo ne bu dee xam-xam wala bu dee kii jàng nañ ko ba noppi kon am na luñ leen rawe ñun ci nga wax léegi moo am fexe ba xale yi nga xam nag ñoo naan juneen nag ñu fexe ba am fu ñu leen dugal am possibilité di leen jàngalal suñu bopp di leen saytu mu mel ne wet googu nag sëñ bi ak sooxe am na fi goo xam ne boo xoolee ci association yi ak ci daayira yi li nga wax léegi commission culturelle yi la war a gën a màggal mais ñoom dafa mel ne ñoom lañ gën a suufal foofu it jar woote fi bu baax ak soññe fi bu baax waaw parce que man mi ngay gis mbir fi mën a jëm ak yu demee noonu kon responsabilité la ci ñoom ñu xam liñ ne liñ li ñu nekk maanaam jëwrin bu ñu la ko falee rek du ak pal maanaam responsabilité la am nga engagement ci war a fexe ba xool foo gën a jëm fu fu gën a porté fi nga fi nga nekkoon loolu moom lu wóor la kuy dox ci àddina bi wala ngay dox ci bitim réew xam nga ne rôle bi kër Sëñ Tuubaa yi war a joué dëgg dëgg dëgg ci côté boobu des na bu wóor a wóor a wóor kon nag politique bu bureau yi bureau yi daayira yi ak association yi war nañu taxaw seetlu ci loolu mm-hmm. rawatina nag fi mu ne bu fekkee ne ndigalul Sëñ Muntaxa mooy loolu mm-hmm. kon war nañ ci war nañ ko wutal budget bu wóor a wóor rawatina it sëñ bi euh, baal ma xëccu yi ci biir bureau yi ku bëgg a jël poste ku ne na maay jël kii boo lëggee ñu ne a nga waaw loolu loolu li koy waral mooy dañoo delluwul ci njàngaleem sëriñ bi ñàkk mm. xam-xam rek ndax sëriñ bi bi mu sosee yoonu murit mm. dafay fekkoon ay jikko yoo xam ne moo doon gàllankoor doxin yi muy rëy ak kiñaan ak ngisal ak mm. ndéggital ak yu demee noonu mm-hmm. sëriñ bi fexe ba taalif ay téere yoo xam ne dalay jàngal lan mooy rëy la ko ba nga xam lii lañ koy moytoo lan mooy ngistal ak yu demee noonu nga njëkk yi taxoon na seenub dox gaaw gaaw gaawaay boo xam ne mhm. loolu moo ko waraloon mooy yooyu dafa dañoon ci seen xol kon soo gisee xëccoo rek addina taxaw na mhm. soo gisee xëccoo rek addina taxaw na ñun murid yi waruñu am problème ci ni ñuy yore suñ booloo parce que sëriñ bi daf ñoo bindal lépp mhm. ñaan goo gis muy ñaan rek digal la waccal xulubuna ala tawadudi bi la tanasuin wala taasudi wala taqasumin wala tadaburi wala tadabaxudi wala tadafuri xata nasira muxlisina saalihin dama ne xëccoo bi gàllankoor na ci lu wóor lu bëree bëree bëri te xam naa ne tey jii murit yi ci bitti suñ amoon ay njiit yu wóor yu leen wommat mhm. résultat bu mhm. raw bii mën nañ ko am mhm. te nag man daal dañoo war a tëju dama jàpp ne dañoo war a tëju def ay assise xool daayira fi ñu ko jëlee ak fi mu ak sax ak fan la ñu war a jëm waaye waruñoo nekk rek ci ne 40 ans yi ñu ngi ci lii te defuñ taxaw seetlu xool fu ñu war a jëm te jamono dafa soppiku dafa changé te ñi ngi jëm ci mondialisation te war nañoo njëkkanteeg suñuy ndaw. Mhm. ba fexe ba orienté leen. Mhm. sa ngam da ngay dem fu mel ne Paris wala nga dem. France gis nga ne naar yi am na ci ñoo xam ne fexe nañ ba am ay mhm. am ay centre fexe ba am fa ay lycée di jàngale te am ñun taalibé Sëñ Tuubaa fii ci bitti am ay kër Sëñ Tuubaa am ay association yoo xam ne ñu ngi accordel ay bis kon war nañoo mën a fexe ba dox jëm ci loolu ànd ko gouvernement Sénégal pour loolu am ku mel ne sëñ Mamour Mourtada da nga gis ne da ciy sonn loolu di ci taxaw waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci daayira yi nag ñoo war a am gëm-gëm boobu jàppale jàppale leen ci mm-hmm. man euh, loolu dama ci hésité parce que di ci hésité di ci hésité defoon nañ sax benn mawdu ci koor gële jàll muy aljaaliyatul murida muy waxtaan ci rôle bi kër Sëñ Tuubaa yi war a suyee ci bitti ak jafe-jafe yi nga xam ne taalibe yi am nañ ko te loolu lépp li koy li koy waral mooy dafa am document boo xam ne bind nañ ko teg ko ngir càmbar loolu war war caa dox jëm te dox dañ koy gis su loolu nag kenn mënu koo saafara ñu dul jëwrin yi ak responsabilité daayira bi waaw jërëjëf sëñ bi xam naa ne <laughs> wax dëgg yàlla jot gi duñu ko may ndax waxtaan bi ba nga commencé waaye wax dëgg yàlla ah, fas nañ yéene beneen yoon incha allah danañ fas yéene siq ak yow waxtaan bu gën a xam naw nañ sa it waxee te maanaam sa kàllaama bu jógee suñu borom mën a ca def yàlla sutura léegi maanaam nit ñi dégg ko te jëfe ko kon jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a yéen ñuy seetaan nga xam ne eh, yéenay seetaan fii ñu xam ne waxtaan ci kanam tuut incha allah dana commencé bu commencé da ngeen ko mën a seetaan en direct fu ngeen man di toll eh, ci dil yàlla en attendant ñuy am eh, beneen invité ñu jox liñ bi la régie incha allah ba ci kanam sëñ adi sama may sunu mbër baare